saalihiin sabila al-birri yu tedd yi ci teew yëpp jën yoon bi tegu ci loxol ki nga xam ne mooy kilifa kër gi kilifa jotaay bi borom bar bi sëñ Cheikh Makhtar sëñ Saliou di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax taxawaayam ñëpp xam nañ daanaka sax duñu jar leeral ndax ñëpp ko xam ñëpp commencé ci yéene ko kàttan ak yéen ba yéene ji nga xam ne mooy juróom bu tedd ba tàmbaloo na ko mu àggale ko te lépp xam ne ni mu ngi ci ak mboolem rakkam yu tedd yëpp te bu ñu ci tuddee Serigne xam ne ko ci ak bëggam Serigne Touba nga xam ne loolu mooy mandarga yi gën a fës ci moom waaye rakkam yëpp Cheikh Mouhamadou Bassir moom itam ñëpp xam nañ taxawaayam ci ñun dëddoo lépp nekk ci dafay gën a nekkoon baasi ci Cheikh Abdou Khadir Mbacké moom itam li ñuy wax daa fudd foofa ndax day am loo xam ne boo ko liggéey sax dañu dara baasi ci Serigne Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké mi nga xam ne yàlla def na barab bi moom lañ ko jëmm jawaat mu di ko jiite nekk ci imaam di ko taxaw te la am kon ko amee lu cant amee ko gërëm ñu taxawaay kon bu ma jaaree fii ma jaar lépp li ñuy firi rek. mooy tawfeex bi nga xam ne suñu borom Serigne Touba jagleel na ko Serigne Saliou Mbacké ci ak njabootam bët yi rek daa koy wax ñoom ñëpp kenn ku ci ne yàlla defal na tawfeex kenn ku bokk ci moom koo xam ne mbirum na war a amut loolu tawfeex la dugg Serigne Touba defal kon yàlla yàgg lool yoon wi nga xam ne ci lañ nekk nga xam ne ci Serigne Touba taaraxuñ ci ci dara. loolu bëgg Sëriñ Tuubaa ak la seen waajur ba nekkoon nekkuñ ca boole ñu ko sax ci seen dund ak yàlla suñu borom dëgg la kattan na leen mu wat li seen yéene ba la seen waajur ba tàmbali yàgg na ko di siyaare itam suñu kilifa bopp yi tamit ñu fi teew te xam naa du ma a nii ñëpp ndax man naa gisuma leen waaye bu ma tuddee Sëriñ Hamsatu Mbàkke Cheikh Abdou Lahad ñi nga xam ne daanaka sama kàddu sax day dugg ci biir ay kàddu ndax li ma ci waroon wax lépp ci fàttali ak ci soññe wax na ko te moom ñëpp xam ne Cheikh Abdou Lahad li ko la doon coono Cheikh Saliou Mbacké moo ko yar tàggat ko jàngal ko yar ko def def def ci moom ñu def ci moom te moom itam mu xam ko te delloo ko lool. bañ na ko li mu wax adduna mënu ko jeexal loolu ko si Serigne Touba defal waaye Serigne Hamza li ëpp ci ay waxam ay maraaj xam yëpp ci Serigne Saliou lay nag yar bi ko yar ak bëgg bi moo tax ba foo balaa sax la ci wàllu baax di ko sant. itam suñ diggante moom ginnaaw boole gi ñu Sëriñ Tuubaa boole dese bi ci dara yàgg na lool te dara musu ca ñaaw ndax yëkkati na doom bu ngir jëbbal ma ko yëkkati na doom bu ngir bàyyi na ma te loolu mooy li gën a tuut ci sama diggante moom kon ñu koy sant moo di ko gërëm di ko ñaanal ci barkeel Sëriñ Tuubaa moo doon suñu borom gën koo dëgëral gën a jubbanti am xelam ko laajaloon ci li nga xam ne lépp loo xam ne dégg na ko te muy li ci yoonu murid lu mu ca war a defaan rek bu ca xaar kenn. lépp lu mu dégg ci. bu dee loo xam ne jàpp na ne loolu war a yëkkati wax la day mel ne bu ko defu doon jàpp kon rek li muy wax ñun ñëpp dañuy maasee wax rek ci isa xaalat xasaan yi fa sadiquha fa innal xawla maa xalal insaan kon li mu wax lépp ñu tàbbaal lañ ci biir di nuyu itam Serigne Sidi Mbacke bi Cheikh Abdou moom mi nga xam ne moo itam taxawaayam ñëpp xam nañ ko yàlla def ginnaaw kilifteef bu ñu doon ci ñun itam naa leen ba yàlla si nekkul Serigne Abdou Khadir lépp laaj baat di dégg ci moom mooy dem leen ci Sidi maa ngi sëñ bi sama loolu ak junj doon suñu digg moom loolu itam yàlla def mu rafetal ko lool bi ñuy nekk ci door a jógee kër si bi di jàng xam-xam bis bu yàlla sakk guddi ak bëccëg këram mu ne su ko xam ne jotaay bi tey suñ si bi ku xam xam ne dafa lawet ba dama leen daa wax ne ku ci biirum néegam bi fab dara mu fekk la sax doo wax dara nga kersa ñu ngi siyaare ñëpp ren di gërëm mboolem mbokk yi fi teew yëpp xam naa jotaay bi dafa gàtt ndax ndegam dafa bokk ci sunna yi tax jëlu futu kon wax ji gën a mutu xanaa di fàttaliku rek fi nga xam ne barab bii yàlla def moo ko taxawaloon di Serigne Saliou Mbacké moom nag. jotaay bi dafa gàtt ba ku bëgg wax ci yow doo xam sax fu tam te mboolem jabootu ko Sëriñ Tuubaa gépp la koo ci wéetal waxtaan ak moom foo xam ne ba na jàpp naa ne maa ci raw waaye nag jabootu ko Sëriñ Tuubaa gépp la loolu rek Sëriñ Tuubaa mu jël bi mu fi mu te léppam di lu waajal moo ci feet ba day mel na loo ko si yoon wurit sax wala loo fi séen baatu suñu seer ci biir ba ci kii fi xam nañ ne ba ko Serigne Sall di tànn di ko jiital booba ñëpp a ma bari na lool ci yoon bi seen Serigne Sall ku ràññee la te mën a setal tamit waaye ba mu ko jiital. am na lu doon séddale sax ci biir kër Cheikh Mouhamadou Bachir ba mu joxee ba noppi da a xaale wala nga bàyyi maa koy séddale sama bopp kon séddale sama bopp ba def bi jot sëriñ Moussa Mbacke bi itam na tax ba ma koy ko na ko moom na ko na ko taxaw ngir ëllëg kon day mel ne jotaay bi taxaw. kon ku fonkoon Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye ñëwoon Sëriñ Tuubaa ñëpp itam mën naa ne foo ci dem rek loo fa gis tam yéem na rek Sëriñ Saliou ko fa def loolu rek taw Cheikh ñu ko Sëriñ Tuubaa defal loolu rek la jiitu ci la ko ko maye mooy bëgg yi bëgg dafa bëgg Sëriñ Tuubaa ba bëgg jëmmam te am na loo xam ne Sëriñ Tuubaa danoon na ko ci diggam rasulullahi muy mahabbati al muxtaar sayidina hubbil mahaniya wal ahdina wal warda noonu la defal diggam sëriñ Tuubaa dama daa wax ne koo mu ràññee lool sax da gis mu fonk taalibe sëriñ Tuubaa yi ne ñoom la jiite sax ci njabootu boppam loolu bëgg gi bëgg sëriñ Tuubaa daa xool taalibe sëriñ Tuubaa yi sëriñ ñoom waaye sëriñ Tuubaa yi fay na ko Serigne Saliou saa su xëyee nit ñi di ko gën a bëgg di ko gën a te kenn campagne leen ci kenn waxu leen ci lu tax ñu di ko gën bëgg waaye kenn ku ci ne yaa amal sa bopp sa ab yéeg sa digg ak moom sa digg moom ba saa su xëyee nit ñi di ko gën a bëgg di ko gën a sopp loolu nag bëgg du bëgg Serigne Touba jël léppam def ko si mbirum Serigne Touba mu wax Serigne Touba fayal ko li ko fayal te li ciy firnde mooy barab bi ñu toog. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko nattoon yëkkati ko jox waaye ci biir nekkul suñu sarew mboolem loolu natt ci biir Touba rek li mu pàcc yi di bari bari nga xam ne ay téeméeri junni parcelle waaye lépp turu suñu Touba rek def ko addee suñu Touba doy na ko sëkki ndam titre foncier bu Touba ndax xam ngeen ne titre foncier bi ñëpp xam nañ ne dafa saw si mooy gàllankoor yi amoon ci jumaa Tuubaa lu ni su ko ñàkk def waaye ba atum deux mille titre foncier bi ëppatoon quatre cent ay kilomètres sax mu tudd ko te loolu ñu bëri ci nekku si seer bi ak xalaatam ak doogu gam ca doogoon ca boo fekkoon président bi fi jëkkoon nekk mu sàkkoon ko ci moom te yàlla defaloon sottu waaye day mel ne ci dogam ak yéen jëm ci amoon moo tax mu doog ci président bi mu fi bi fi bi fi nekkaatoon mu teg ko fi mu Abdoulaye daanaka sama sa jëloon yàlla def titre foncier bi ñëpp xam na ni ginnaaw Sëñ Saliou ci la ñuy door a xam li muy jariñ ci dëkk bi kon waxuma liggéey yi mu def ci biir dëkk bi xel ko war li mu tër bi ci nit li mu defar ci nit li mu sañ ci daara li mu tabax ci juwaa yëpp boo ko jural teg na ne waaye titre foncier bi képp doo ne Sëñ Saliou liggéey walbatiku delloo taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ci pëstéef mooy delloo yoon wi ci na ko Sëriñ Tuubaa xàlle woon mooy lépp loo ne nuuru na mbir mu àdduna wala lu koy rek mu jë mu jël ko dindi ko ci biti te yàqu dara ci doxalin yoon xam naa nag mel na waxtu jege na te nit yàkkamti nañ xam naa damay jeexale foofa wax yi rek di ñaan yàlla ñu ko Sëriñ Tuubaa fayal ndax yàlla def na kenn ku ci ne. yaa ngi yaa ngi dund ci moom ba mu mel ne Sëriñ Tuubaa ngay dund sa digg moom ndax loolu njabootu ko Sëriñ Tuubaa waroon dafa àggoon na ci ku mu xam ku bokk ci Sëriñ Tuubaa boo ko jubee lu mu xat-xat danay wax ne bala ngaa toog nañ la indi dara nga toog te loolu ku ne xam na ne loolu waru ko ci kenn waaye ak bëggam Sëriñ Tuubaa te ku ne muy dàkk Sëriñ Tuubaa ci yow ñi fi nekkaloon Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Fadil addi jëm yëkk yëkkati muy am bari mu bari lool nit ñëpp di ko yëpp dafa jël lépp jox ko Cheikh Mouhamadou Fadil addi te loolu mosu koo bàyyi ba ni ni nekkee Serigne Touba bi mu dee ba doon Serigne Touba rek xam ne ñëpp a ko war a jox dafa wëlbati ko at mu jot mu dajalewaat addi yi yu bëree dajale ko def ko addi yi ñu ci nekkat ñëwoon Sëñ Tuubaa kenn mu si génn naa fàttaliku sëñ Moodu sëñ Buxaari ci at mu jub comme que chef la danaa dem ko sëñ Saliou delloo joxe mu mu jël sëñ Saliou sëñ bi ne ko ñaa ko bu ma sañoon de lii ma ko jox mu di ko téye ndax joxuma la ko ñëw addee Sëñ Tuubaa te Serigne Cheikh mu sëñ Saliou yëpp ma sama nekk la ko dugg. léegi ne ko. saa soo ma war a jox addi dee ma jox addi waaye nag lépp loo yëkkati jox na ko ngir Sëñ Tuubaa ko tëjee kon sëñ bi foofu la ne woon ku mu mos a gisee Sëñ Tuubaa la daa xeetu ci waaye nag Sëñ Tuubaa fay na ko xale bi def yëpp wa min wa min shahaadati l-fataa haysu xasat allaa yurudduhu fuaadu sat sëriñ Saliou waxuma xol ba xolu taalibe Sëñ Tuubaa waaye jullit yeeg ñi du di julli sax yaa def ne seen xol bëgg Sëñ Saliou wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala